wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mbokk yu tedd yi ñuy delluwaat ak yéen ci seen jotaayu tafsir al-qur'an al-karim di jëggalu ci guddi gi ngir yàlla ak yitte yi nga xam ne ñooñu tënkoon tey nag ñuy ñëw ak ci suuratu abasa suuratu abasa bokk na ci saar yi tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko bokk na ci saar yi wane ne yonent sallallahu alayhi wa sallam waxu dara lu jógee ci boppam waaye it nëbbu dara ci yi ko sama borom jottali loo moo tax da ma baal balaa ñoo dugg ci euh, waxtaan wi ñu jottali benn mbir bu nga xam ne xew-xew la jamono yi yëpp xëy na sax ñun yàlla bindeewuñu ñuy wax ci politique waaye nag su mbir demee ba laal diine képp koo xam ne am nga xëyra ci sa diine soo amee loo ca mën a wax luy jubbanti te yàlla tax war nga ko wax soo ko mënut ku sa naqarlu yi mën a xàgg war nga koo wane tam dëppoog ni yàlla bëggee ak ni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggee mu fi wax jamono yi weesu te suñu borom subhanahu wa taala digal lul ñu ci alquran ñu aji màkka tuddut sax màkka ci alquran fi mu tudd mooy bakka mu wax ni bakka nag jotewut ak dara màkka waaye bu ñu xoolee baat bi li muy firi daf ñuy yóbbu ci bukaaw ji firi mu mel na kon lu tax ñuy aji makka te aji wuñu Jérusalem ba nga xam ne Jérusalem euh, muy euh, al koy wax Jérusalem ba nga xam ne fela mur mur de lamentation nekk te mu ne it bu arab yi ak juif yi dajee dana wax lieu ba exact loolu ci lu dul benn werante li muy firi mooy jullit yi la ko dalee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa miñ wàcce woon ci moom alquran mi demoon aji màkka yónni abubakar mu dem at ma ca topp mu dem mi ñu wax ne foofu lañu yàlla digal wax ko ci xadis yu wér alquran leeral ko ci barab yu bari tudd it barab yeñ war aji yëpp yooyu yëpp nekk ca màkka lu mel ni safa ak marwa inna safa wal marwata min sha'airillahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam dem fa dem arafa yàlla ne ko ida afattum min arafatin dem musdalifa dem masharul xaraam yàlla ne na ngeen tudd yàlla inda al masharil xaraami wadkuruhu kama hadaakum wa in kuntum min qablihi la min adaalin aayaat yooyu yëpp mu jël sànni ahadis yooyu yëpp mu jël sànni jëfi yonent beeg saxaaba yeeg taabiine yi ba ci suñ jamono ñun mu jël yëpp sànni ci mbalit ne du dëkk lii les soit disant yahud wax mooy dëkk wax jooj nag mbokk yi jeexital na fan yi yëpp am mer ci xolu képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba loolu amee génn na defub sorti ñu ne jéggalu na te fekk jéggaluwut dafa jël débat bi orienté ko feneen foo xam ne bu sénégalais yi amuloon xel mën na leena jural ñu xeex mën na leen jural ñu jëfante jëf ju bon mën na leen a ñu waxante ko donte am na ñu suufe ju xel ñu jota waxante wax yu bon ñu ñaan yàlla jéggal leen jéggal ñu mu ñëwaat bind beneen bataaxal bataaxal bi biñ ko gisee ñun ci website bu xalima lañ ko gis ma contacter administrateur xalima muy suñu mbokk Alioune Mbaye laaj ko ndax li ma gis lu authentique la ndax wax ji dafa gën a yokk pétrole ci safara si ndax Idrissa selon liñ bind dafa campé ci position Alioune photo wala Snapchat page officielle bu Idrissa Seck yónnee ma ko am na nag ak wuutee bu am ca fin ba mooy ci fin wu bi ma gis ca xalima dafa am salaam ak shalom waaye ci lettre ba ma gis ca page amut shalom loolu mën nañ koo dindi sànni waaye li tax ma ne Idrissa président Idrissa mi ngi campé ba léegi ci position jogu ca non seulement mën ca campé jogu ca waaye mi mi ngi gën a confirmer ak appartenance am ci beneen mbooloo mu dul mbooloom diine lu tax ma wax loolu benn dafa ubbee ne ñu la waxalee lu ñaaw waxal lu rafet mu mel ni moom lañ waxal lu ñaaw aaye jum kóot loolu sax mën nañ koo bàyyi mu jàll mooy kóot ba mu kóot aaya boobu di wax ne buñ la waxalee lu ñaaw idfa billati hi ahsan ba mel ni moom mosta lu ñaaw muy benn ñaareel bi tamit